waaye combat Ama Baldé Modou Lô combat la boo xam ni moom ñëpp ñaan yàlla gaaw arbitre soufflé ba ñoom ñaar ci géew ba bis boobu non saa yàkkamti naa combat boobu. parce ko xiif coow boobu xam naa ne arbitre soufflé Ama taxaw Modou taxaw ah combat boobu combat du ko dàq daal. parce que wax nañu ne xale yi fi juddu woon ñëpp ku ci nekk jamono ji mat ngaa am jëkkër ndax combat bi li ñu ko reporté dafa bari. ah yow ci nga juddu yow. Mhm. yow ci nga a ah déet kon fekk na ma judd bi. ah waaw kon kay xale yu judd. <laughs> combat bi yàggul di mat nañu am jëkkër. combat bi yàggul di ndax booba léegi 3 ans ñu koy pousse. waaw moo la woon dafa a neex nag. Mm. li ñuy ñaan yàlla daal arbitre soufflé Ama taxaw Modou taxaw waaye xam naa ni. ñoom ñaar kenn mësul bëree arène nationale. dégg nga ñoom ñaar ñëpp kenn bëreewul ci parce que Ama Baldé toog nga 5 ans bëreewul. moom moo euh, Modou Lo ba mu dégg roi des arènes ba tey jii moom itam. diggal maas. mu ni. Eh, ayca eh, la Ama Balde toog na juróomi at bëriwul Modou Lo itam ba mu jëlee roi des arènes ba tey demagul fi nga xamante ni moom mooy arène nationale. waaw alors ndax gisoo ni tey lamb ji am na wàllu mystique bu nga xamante bokk na ci li koy téye. Oh, mais lamb ak mystique ànd di. Hmm. kon mystique ba léegi mystique te seen combat bi day yomb daf nax de. Hmm. boo xam ni. wallaahi sànq ca stade ba. ko sotti taxaw hmm. ah. Hmm? ah xam naa ci leen de.